ça va bien se passer même. On va voter, on va rentrer chez nous et que le maire gagne. Mhm. Peu, importe. Les Sénégalais vont décider. Dieu est grand. Ok. Merci. Allez. on est là, on est là depuis le matin, depuis euh, pratiquement 6h, 6h, 7h. Vu la situation, ça va, on est là, on attend. Bon, ça va, alhamdulillah. wote bi dal wote nañu si jamm ñu ngi ni amul ngayo, amul xulo amul dara wah sant nañu yalla dal police yaa ngi ma sha allah sant nañu yalla waaw ñu ngi dal ñu ngi ñaan ku ci gagné ñi dem ak yow waaw ku si wul nak nga dem ci jamm salam waaw te ñaan nañu si jamm salam dara du dara du am ci katal Serigne Touba dara du am waaw man.